fay naa la doom day am nga waa wasaare mu naa lamb tey neexati na lamb bëggati na arène nationale tëgg na tey fi nga xam ne may ubbi maa tëgg na tey loo loo sa yëg-yëg tey ci loolu waaw mais la tey ren boo xoolee ne dafa saturé te aussi euh, date amul moo tax ñu ubbil maar di ci remercier euh, ministre bi bu dul loolu tey ñëpp leen jëm moo tax tey chaque weekend rek lamb dina am Iba Mar am arène nationale Sambay waaw noonu la rek di waaj le 3 juillet waaw di woo waa Sénégal yëpp di la nuyu aussi di euh, di leen woo waaw wasaare gis na liggéey bi trois quatrième édition drapeau monsieur le maire Ndiaga Niang maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer di maire boo xamante ni macha allah waa drapeau bi daf ko fonk lool di diggante Coly Faye numéro 2 ak euh, général bu Fass wax dëgg yàlla le 3 juillet aussi am nañ ci beneen drapeau boo xamante ni tey suñu kilifa la di suñu mag di suñu xarit di Maguette Paye promoteur immobilier nekk fële sa yéen wax dëgg yàlla euh, combat spécial moom lañ ko jox di nit ku baax di ku ma jàppale aussi euh, diggante deux Giga ak Reum combat boobu combat bu doy war combat amateur ñu jël ko jox ko Maguette Paye di wax dëgg yàlla koo xamante ni ndaw la nangoo liggéey di def social di jàppale doomu aadama te kenn kenn kenn du bëggul kenn xam ko man mii daf may taxaw si lu ne wax dëgg yàlla combat bi tey bu taxawee yàlla ak moom la daf ci taxaw baax dama may jàppale muy Maguette Faye wax dëgg yàlla ma koy gërëm di nuyu waay yéen yëpp di ko wax ne ñu jàppale ko seen doom nit ku baax la wax dëgg yàlla di nuyu ay soxnaam vraiment di nuyu waay di ko di ko taxaw daal waaw troisième drapeau bi di diggante Tafa Xarañ ak Boylo di drapeau Serigne Medoune Seye borom tawfeex wax dëgg yàlla di nit ku baax tamit kooku tamit di jàppale askan wi xam ngeen ci dara xam nga di jàppale ñëpp. xam Samba xam ko suñu bu neex ndaw rabbi gi yëpp lépp gi ñëw. non le trois wax dëgg yàlla boo bëggee gis làmb dëgg-dëgg boo bëggee gis euh, cosaan wax dëgg yàlla le 3 juillet di ko gis bu soobee yow xam nga li ma la wax sax non man xam naa ne amateur yi na mu nan loolu moom leer na ma jërëjëf maa ngi lay jaare di nuyu ñëpp